asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu sëriñ bi maa la nuyu di la ziyaara di ñëwaat ak sëriñu mag ñi di cheikhul qawmi fi ñu yemoon ak moom keroog te nag xasida gi mi ñuy wax ak ñun daairatul kiram di daaira bu mag boobu daan bàyyi ko ndakaaru daan ziyaare si Cheikhul Xaaj Malik ak njabootam ñëw nañu yoon boo xam ne Xaaj Mansour dafa defar genn xasida di leen ci delloo njukkal di leen ci ñaanal di leen ci tatagal ah nga xam ne ñoom la ñuy def yàlla rek moo tax ñu bëgg Cheikh Al Xaaj Malik ba jaarak ak moom fii mu jaar ak ñoom moo tax mu ne haadi lii daal taxiyatu fitiyatil ansaari lii mooy nuyoo xaleelu lansaar yi nee na nuyoo ba ñu nuyoo nag tasli dana xeet an nasima ngelewal ndiimeex li mooy ngelewal ngelaw loolu di ñëw heure fajar nga xam ne ku yoroon malaat maanaam ku yoroon mitit maladi boo mën di yor heure boobu ñaare ngelaw loolu di dugg si dana tax mitir wax a ah, wàññeeku tuuti ba nga nelaw moo tax mu ne ngelaw loolu a ah, sa na bil asaari ci njëli de ku yoroon lu mitir dina la saafara ba nga xaw ba nga wasafat mawaariduha li taalibi wirdiha min xubbikum min xultatil akdaari nee na wasafat sell na mawaariduha ay li taalibi wirdiha aji sàkkoo root rootuwaay yooyu min xubbikum bàyyi ci seen cofeel moom nuyoo boobu boo xam ne mucc na min xultatil akdaar ci jaxas ay njarag lu dul dëgg ak nangam-nangam ahlan wa sahlan marhaban bi ahibatin waradu bi zawrati markazil anwaari ne ne maa ngi yaatal ak ci soppe yi nga xam ne rot si nañu fii di nemmiku ki nga xam ne mooy santaru leer yi di Cheikhul Xaaj Malik moo tax mu daan lim la ndax mu nekk santaru leer yi moo tax mu daan wax ne bàyyi leen muus yi ngeen di dóor wala xaj yi ngeen di dóor ndax am na ñoo xam ne dañuy ñëw fii di jëriñu si pour ñu ne jariñu foog ñu soppiku leneen ba génn ba dem kon duwul ne muus bu ngeen fi gis ngeen kaa dóor duwul ne xaj bu ngeen fi gis sax ngeen kaa dóor de déedéet ndax wolof xamul sëriñam di am sëriñ kon ëhlan ñu leen di wa ahlan wa sahlan ak mooy ñu ngi leen di dalal rek marhaban ñu ngi leen di yaatal kooku arab da koy waxee dalal di leen tatagal di leen yaatal baat yooyu loolu lay tekki rek mooy yelloo ngeen ko te yombalal nañ leen ko te yaatal nañ leen bi ahibatin ci ay soppe yoo xam ne wara durat nañu bi zaw bi zawrati markazil anwari ci ziyaare goo xam ne ñi ngi koy ziyaare leer bi leer yi mooy Cheikh Hadj Malick Cheikhul Hadji Malick moomu nga nekkat mooy centre leen mu ne muqil ashirati najli Ousmane alladi saadul anami wa mahbitul asrari moom Cheikhul Hadji Malick nee na sidee bu fekkoon ne famila boo xam ne am na yuq ñu ne Cheikhul Hadji Malick mooy yuq ga moo tax mu ne muqil ashirati mooy yuq famille bi najli Ousmane mooy doomi maam Ousmane si ji alladi doomi maam Ousmane nga xam ne saadul anaami mooy tex ak mbindeef yi wa mahbitul asraari mooy wàccuwaayu sekkere yàlla yi saxru suruuri badaali daairati hum alladina tanafasu lilbaari nee na Cheikhul Xaaj Malik moomu saxru suruuri mooy yàlla mbégte badaa feeñ na li daairatil kiraami ñeel daaira boobu ñuy wax daairatul kiraam ñen ñooy daairatul kiraam mu ne hum mooy ñi nga xam ne te naafasu xëccoo nañu njëkkante nañu lil baari li misli hada fal yaamal al aamiluun fasil mutanaafisuun bëgg yàlla ak yittewoo yàlla moo tax ba ñu gis Seydil Hadj Malick ñu ko seen bopp xam ne liñ doon wut cheikhul haaji malik samsu zamani bi yawmikum talaat lisaanul xaali shaahidu jawharil ahraari cheikhul haaji malik samsu zamani mooy jant jamono bi yawmikum ci seen bis bi talaat bopp fenk moom mooy sant jant jamono tax na lisaanul xaal melokaanu làmmiñu melokaanam mooy nga seen ko rek xam ne lii lay dox comme lisaanul xaal daal ci misaal suñ la misaal nga mën a dégg nga gis dajeg nit mu sol baasu mool sol ab zile gàddu wat mooy ab jooweekaay non seulement def ci ay caas ak i onze gàddu ko gàddu torso automatiquement gàdduwaale paaka bum mu takk ca ndigg la automatiquement moom boo ko laajul ndax géej nga jëm da xam ne kii géej la jëm ndax lisaanul xaalam moo la ko wan dem ko tool it noonu rek la loolu mooy lisaanul xaal moo tax mu lisaanul xaal lisaanul xaal bi daal mooy melokaanu làmmiñu melokaanam shaahidu jawharil eh, ahraari aji seede la dégg nga maam cosaani góor-góor yi nga xam ne moo nekk ci moom dégg aji seede la wëlëru gor gi nga xam ne moo nekk ci moom wala cosaanu gor gi nekk ci moom bi manaqibin wa mawahibin li qudumikum kallal wara bil addi wal ihsaani dégg li qudumikum ñeel na ñëw gi ngeen ñëw ci moom nag ñeel na leen ca bi manaqibin ay jaloore yoo xam ne yéen a ngi koy jëlee ci moom muwaahibin ak may yoo xam ne kalla lottu na al lottal na al waraa mbindeef yi bilaa di ci lim manaqib yooyu ak mawaahib yooyu wal ixsaari ak takk ko loo munul xam ñaata la nag loo munul wàññi doo ko mën ñaata la busra lana min malikin iz kaana xayra wasilatin nanju bihi min naari nee na yéen ñëpp kontaan leen bég leen ci Seexul Xaaj Malik mi nga xam ne mooy gën ji jokkuwaay pour àgg ci yàlla tax na ñun ñëpp mucc nañ ci sawara ndax yoon wi mu ñu jaarale moom ku ci ku ci jaar da nga mucc ci sawara daa jubóog sa borom moo tax mu ne busra la naa mbégte ñeen nañu min malikin bu tukkee ci Seexul Xaaj Malik iskaana ba nga xamee ne nekk na xayra wasilatin di ngeen ji jokkuwaay tax na nan juu ñun ñëpp mucc nañu bii ci moom min naari ci sawara ci wasila boobu seexul xaaj maali moomu ayni siyaadati maa dinil amdaadi zinati sahbihi alamil huda lissaari nee na góor gi daal ayni siyaadati mooy jëmm cange cange bu fekkoon ne jëmm la ñu ne seexul xaaj maali ga maa dinil amdaadi mooy cosaani tëbb yi bu fekkoon ne tëbb am na cosaan wala mbell ma ñu ne Seexul Xaaj Maalik la zinati sahbihi mooy taaru àndandooram yi mooy taaru taalibeem yi kenn ku ne bëgg ngaa tiitaru ne Seexul Xaaj Maalik mooy sama sëriñ ndax dafa neex a tiitaru nag wax dëgg yàlla alamil huda mooy drapeau njub boo xam ne dañu ko samp muy folote li saari ñeel aji rañaan ji nga xam ne dafa dox nga xam ne toujours drapeau bu mboobu moo koy orienté qad qassahul mawla qasaisa jammatan rabbi rabbi isqina min faydihi lmidraari ne xat xassahu dëgg-dëgg jagleel na seekul xaaji malik al aji méngoo suñu mooy borom xasaisa ay jagleel yoo xam ne jammatan yee aji bëri lool rabbi yow sama borom isqina yal nag ñu nandal min faydihi mu bàyyi ko ci tëbbam geeg mayam yi al bay aji dotti ko yaa ahla daairati alkirami adintum fi lxayri walislami maa isaari mu jàkkaarloog waa daaira ba tey ne la yaa ahla daairati alkiram daairati alkiram yéen waa daairati alkiram yéen laa wax adintum yàlla na yàlla saxal leen fi lxayri ci yiw wal islaami ak islaam maa isaari ànd ak yomb yomb yépp ndax yéen wala xad qubiltum fanimu yaa aqi xayral xabuli maa intifail aari dëgg-dëgg nangul nañ leen nag seen ziyaara kon nag yàlla na yàlla defal leen xéewal kon yàlla na yàlla defal leen xéewal ci loolu nga xam ne sunu borom defal na leen ko moo tax mu ne wala xat xubiltum dëgg dëgg nanguleef na leen seen ziyaara kon fanaim xéewlu leen yaa ixwaani yi yéen bokk yi xayral xabul yi ngën ji nangoo maa intifaal aari ànd ak dàquk lépp luy jur gàcca mbaa xottikuk sutura mu ne fal yaftaxir ahlu dakaari bi malikin faqra faqral quraysi bi mafqaril muxtaari yéen waa Dakar dama bëgg ngeen di tiitaroo Cheikhul Xaaj Malik comme ni nga xamee ne waa Xurays noonu lañ doon tiit waa lañ doon tiitaroo ci moo tax mu ne fal yaxtaxir na jiima puukarewu ahlu Dakar yi waa Dakar bi malikin ci seewul xaaj malik mi faqaral xuraysi comme puukare xuraysi bi ma faqaril muxtaari ca puukare ku ñu tànn ka te mooy yéenant bi ñoom lañ doon tiisuroo ndax bokk gam bokk ci ñoom ñii itam tabaarakallaahu si xaaj malik ñëw gëm dal ci ñoom bokk ak ñoom lépp ñu yaatal ko sagal ko tabaarakallaahu nangu ka jox seen bopp nag rufiat bi dakarikum lahu raayaatun likina wa saara alfadlu samsa nahaari ne rufiat yëkkateef na bi dakaarikum ci seen dakaar googu lahu ñeel si xaaj mali lañ ko fi yëkkati mu ne rayaatu malikina daraay pooyu cheikhul xaaj mali yëpp maanaam lépp luy joxoon cheikhul xaaj mali ci ndakaaru rek ci wàllu yàlla rek gis nañ ko fa jàkka yeeg jumaa yeeg zawiya yeeg muqaddam yam fa sampak yëpp rayaatu malikina wasaara mujj na alfadlu ngëneel loola mu fa am di sam sa naari mujj nekk jantu bëccëg raqat yéeme ne moom Seex Alxaaj Malik asalibul humaami mooy façon yi sang bii bi mu doon jàllalee message am yéeme na loolu ni mu ko doon defee wa azharat feeñal na li salikina ñeel ñi nga xam ne ñooy woy soobu ci seen yoonu boroom feeñalal na leen maalimal axyaari maanaa mandargay tànneef yi yoon yi tànneef jaaroon mu jaarale leen fa innal usuura naka jamono bii te naafasat xëccoo nañu li manaaqibil jahja ñeel jalooray sang boobu de te mooy maliki dahri na ki nga xam ne mooy aji mooy maliki sunu jamono mii alminsaar ka di kañ dimbale tabarakallahu ma sha alhaaj malik mooy ñun jamono kenn ku ne yaa ngi ko bëgg a féetale ci sa bopp waaw euh, rafet rek moo tax mu ne maliki dahri naa alminsaar anhu yàlla na nekk ci malik rida rabbil bariya ngërmaande yàlla mi nga xam ne mooy borom mbindeef yi malikin yàlla mi nga xam ne mooy aji moom maa kulli man ànd képp koo xam ne yaxfu hu dana xeeñtu seel xaaj malik fa mu jaaroon kal ansaar comme waa ansaar daal tabarakallahu euh, comme nañ dalale woon yeneen bi na leen yàlla jàppale yéen itam képp koo xam ne day loo loola ci Cheikh Alhaj Mali yal na yàlla jàppalee ko noonu comme na mu jàppale woon ñële tabarakallahu yaakaar naa euh, xasida googu foofu la insha allah ñi ngay jégalu nag ci dagg-dagg boobule salaamaaleykum wa rahmatullah